asalaamualeykum wa rahmatullah wa xadara malikiya li moo nekkoon tey njaalu ñetti fan yi nga xamante ni ci teewaayu Serigne Mbaye Sy Mansour xalifa général de Tidiane ak ci teewaayu Serigne Pam malik si nga xamante ni moo yore kàddu kër gi ñu àndoon doon defal njaal ak ñaan sunu maam soxna Fat Sy ci teewaayu taawam boobu ñu koy wax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si mi nga xamante ni moom lañ tuddee Serigne Cheikh Ahmed Tidiane al Maktoum nga gisoon tay fi li mo xewon fi ci tiwawan nit ñi dalon fi def fi ay ñaan kilifa yi waxtaan ñu ziarante jobalante ay cadeau yu rafet kon hadara maliki yi ñëwoon fii tamit don len rendre compte li nga xamanteni amna fi inshallah rabbi vidéo yi dess yeb ci carton yàlla di ngeen am déclaration wu sëñ pa malisi déclaration wu xalifa général bi inshallah rabbi te dinañ dem ziar sëriñ Habib dialko ak sëriñ Cheikh bu sëriñ Mansour li mo fi amoon tey ci hadara malikiya ñëpp teewoon tey Tiwaawan tay wax dëgg fa yàlla tisna waye dañé delo lépp ci yàlla di ñaanal ki fi jóge yàlla yàlla woyofal suuf ci kawam te li fi dess yàlla na leen yàlla katana yàlla leen yàlla dëgëral insha allah rabbi kon tey Tiwaawan tay li mo fi amoon di leen jox di daje insha allah rabbi très prochainement mais ci yenen fànn ci yenen anim ndax ñu ngi ñaan yàlla li yàlla na fi gëj bi jeexee rasulullah sallallahu alayhi wasallam wassalamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته